naka noonu nag la xale bu góor bi daal di jug nag songu ki nga xam ne moo di ab tàntam daal di koy dóor ba tanta ji jaare fu fatt laataa ñu ko yóbbu nag ca district sanitaire bu gën a jege ci la fa jaaree ñàkk bakkanam waaye nag seeni news daal nañ fa dem ngir rek am ay taataan ci bi lépp dëj waaye nag ñoom di di famille xale bu góor bi nangu ñoo ardu benn yoon ci li ni mel waaye dëkkaale xale bi le nag xamal nañ ni xale bi dafa am réputation nekk nit koo xamante ni dafa agressif te violent dem na sax dem ci boromkatu jaay benn jaaykatu fonde la jox ko cinq fukki dërëm ba pare bëgg mu jaay ko fonde pare di ko menacer di ay sources nag xamle na ni. te nag di def yeneen ak yeneen ci bi lépp gox ba tax na sax waa koñ ba fu ñu toll dañ koy bàyyi xel kawteef ñawteef di ab soxna suy wuyoo si troupe Aysatu Cissé la ki nga xam ne moo di borom këram daal di ko gaañ-gaañ bu métti ba fi mu ne nii mi ngi ci soins intensifs li ni mel nag ki la di jëkkër ci ay ci Cissé dafa nekkoon ab prisonnier maanaam ku duggoon kaso ba génn naka noonu nag mu bi ki la di ay satou ci jabar ci ki nga xam ne dañ ko dencoon foofee ca kaso ba nag daal di ko rek xamal ni ko dafa bëgg ñoom ñaar seen sëy yam fi naka noonu noonu nag si la jëlee li nga xam ne moo di jaas yi bëgg gor li nga xam ne moo di tànk yi ba tax na takk ndaw si fi mu toll nii nag mi ngi diggante dund ak dee police nag bu bunki li nga ñu ngi ci tànk di ko ndax ndaxte ginnaaw ba mu defee jëf ju ñaaw jee moom bee di borom këru Aysatu Cissé dafa daal di daw kenn tegu ko bët Matar Gueye nekk koo xamante ni moo di njiitu ci ONG Jamra génn na def li nga xam ni moom la ñuy woowee ab république te génnee rek am ay propos yu mu aardu jëmale ko ci ki nga xam ne moo di Mame Mactar Guèye nag moom la génne na nag tontu li mel dañuy daal di dem tuuti xuus ci langue politique bi ginnaaw ba nga xam ni le leader de l'Union sociale libérale di maître Abdoulaye Tine nekk fi avocat et défenseur des droits de l'homme nee na rek day bokk ci jongante njiitu réew bu ñu jëm file ci élection yi di nar am fi nga xam ni moo di 2024 ni mel nag fësal na ko ci sam di bi ñu génn yem ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru bu ab gannaaw ab ab yendu bu mu organisé woon rek ngir fësal li ni mel dañuy dem foofee ca lëkk jëli fa waa population bu Fass Ridwaan ginnaaw nag fan yu ñu génn jàppoon nañ fa ab jàn tey nag waa population boobu li nga xam ne moo di jasit nag lañu ñu gis ñu daal koy filmer muy doxantu foofee ci lu wër bi lépp rivière ba tax na nag askanub Fass Ridwaan nag njëkk rek ci sañu nekk ginnaaw ba nga xam ne bi lépp deex nag lépp luy wàllu reptile rek yoo xamante ne mën na gaañee askan wa nag léegi dañ fay gis li ni mel ba tax na nag ñu filmer ko rek partagé ko ngir rek autorité yi yam si daal di ñëw rek jéem xool nu ñuy ñagee bi lépp lakk dañuy desani dañuy ñëwaat Dakar jël ji procès bi dox ci diggante Adja Thiaré jaw ak ki nga xam ne moo di Kaliphone Sall ginnaaw nag ba juge bi tranché ba tëj ki nga xam ne moo di Kaliphone Sall ba nag ki nga xam ni moo di Adja Thiaré Diaw nekkoon fii ci ab asile psychiatrique moom nag kii di Adja Diarra Diaw gis nañ ne rek exilé nañ ko maanaam dañ ko génne li nga xam ni moo di territoire sénégalais yóbbu ko ci beneen dëkk li ni mel nag li ko waral nag journal bi xëy na rek àddu rek na ki nga xam ni moo di Adja Diarra Diaw dafa soxla rek ab ndimbal te nag faw ñu daat koy làq ngir rek mu nëbbatu njege njaale yi nga xam ne ñoo di Kaliphone Sall mbokki internet yi nag xibaar yi dañ koy daal di narkeppe ak gagné bi nga xam ni xale yi nekk yu U19 remporté nañ ko seen ñaari match yu ñu génn mbokki internetu seen ci tv tey nag li lañ leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàtte di bës ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne YouTube seen ak ci tv la chaîne au cœur de l'information